mbokk yi nuyu leen Ndiago Euro ak àdduna eh àdduna dóor na Ndiago Euro eh, dóor àdduna ba xañ na ci Ndiago Euro eh Ndiago Euro dóor léegi Ndiago Euro àdduna àdduna su tur bi diis na de àdduna menn mi àdduna Ndiago Euro Ndiago Euro moo wan ginnaaw àddina la nu jàkkaar lool àdduna moom ëpp naa daanu moom. <laughs> àdduna bi ëpp na mu daanu mais ñaga Europe yi dafa weex ñaari ñool lanu ñaga euro ak àdduna waaw ñaari xale yaa ngi noonu àdduna daw na jël ko àdduna ak Aldina jàpp na eh caxabal na ko tur na ko eh nag àdduna daanu na. àdduna na. daanu na. Ndiago Euro daan na àdduna <laughs> eh xale bu Cambérène baa ngoog. déggal moo daan te nee na nga ko bébé bismillah. bii mooy premier combat daan na ko jël lu rëy ah mais yow rakku mbër la ko doon def da ko doon plaqué mu tuur ko wala da ko doon plaqué mu tuur ko da ko wéy rek rotation rek mu jeex mu jeex làmb yi noonu ñaga daanu